yo xamne da ngay tok ni tek di tewlu jëm yonent bi ba pare soga jàng maqsad bi rabbi inni nawaitu bi tilawa dhal yurda taadiman li dhil jalala كذا لإجلالني والابتغاء مرضاتك لعليا بلا خفاء قصدا لوجهك الكريم العالي ومخلصا لك مع ابتهالي ربي من أجلك وقد أقول بحسن امدادك يا مقيل عونك حولك مع قوتك وما وهبتنيه من نعمك توفيقك المرجو مستعينا وأنت خير من معينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا عين ذي العدوان gis nga lii bala nga koy jàng dafa war a fekk nga teewlu jëmmi yonent bi alayhi salaam ba noppi te même boo ko tàmbalee jàng continuer di teewlu jëmmi yonent bi ngay tëbb ci moom gis nga lii ku ko essayé tuuti ñaar ñetti fan léegi nga xam ni li ñu lay wax ci lawraat yi lépp dëgg la mais nag il faut que nit am pasteefu nag di ko def loolu mooy wax ci gis nga ko ok mu ñu nag bu fekkee amuloo kàttanu mën a teewlu dafa gaaw ah, ah loolu mi ngi ci faakeetu tullaab Cheikh Alhaaji Malick da koo woy yaakaar naa ci téere bi sëñ moor def ci tariqa bi mi ngi ci ana téere bi waaw kay mu ngi nii waxoon naa leen ko waroon naa leen ko keroog gis ngeen ko eh, am na QR code ci ci ci téere bi boo xamante ni bii ni bu ngeen ko euh, comment dirais-je euh, euh, scanner rek da leen di yóbbu directement ci audio bi bu ko defee ngeen mën ko déglu mais bu ngeen xoolee ci biir téere bi indi na fi loolu nga xamante ni bii ni moom moo di maqsad bi waaye dama yaakaar ni maqsad bi nga xamante ni bii ni moom la indi fii bii eh, dañ ko wesar te noonu la dikkee ci téere tariqa bi léegi nag Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu moom daf ko woy waaw woy bi mooy lim doon jàng sànq rabbi inni nawaytu bi tilawa zal wirda taadiman li dil jalala léegi nag ni mu ñëwee nag nga xam ni foofu kenn parce que lu ñu woy ñaare moom ngay gën a gaaw a mokkal waaye ni mu ñëwee ci maqsad bi ci téere bi euh, suñu baay boobu yàlla na ko yàlla dolli ay fan dolli ko kattan muy Serigne Mor Diop ku ne xam na ay taxawaayam ci tariqa tijaan ku ne xam ne ay taxawaayam ci tool bii ci di ci tool bii nga xam ne moo di diiney lislaam yàlla na yàlla taas ñu ci barkeem ya yàlla may ko gudd fan yàlla may ko wér yàlla yàggal ko lool ndax moom kat yàggam ci jamono leer la ci xeet wi leer la ci taalibi tijaan yi te lii may wax nii ku waxal yàlla xam nga ko kon fa tabarakallahu liggéey yi ngeen di gis mu di ko def yëpp moom ak ñëm ci àndal da ngay xam ni wax dëgg yàlla euh, fii mu toll nii sax bam ko waree passé ak yàgg na téere bii ni ak liñ ci dajale ci ay njëriñ yëpp mbokk yi se c'est gratuit kenn jaayu ko na kenn ku ne yëg ni ëllëg ca kanam yàlla mënuloo am lay ci kanami Cheikh Tidiane c'est pas munul nek parce que téré baa ni lepp lu ngeen soxla ci tariqa tijaan non seulement mi ngi ci mu synthèse ko génne ko ci téré tariqa bi nga xamanteni bi ni yu ñu xam la ba pare wëlbatiku def ko ci ay audio yo xamanteni bi ni ak vidéo yo xamni yu leer nañ ñi lañu jàngalé ko mu leer nañ wax dëgg yalla olof né nak banku mi ngi yam ci gannaaw guy nacc nit nak bu banko ba gannaawam naaj fa la mëna yam fi rek la mëna yam mom moom gi su ko défé nak bo xolé ci biir téré bi mi ngi mi ngi ko ci wax allahumma joxé ko nag majaanan fi sabilillah moy lan kenn du ko jaay boo dikkee soxla ko fañ koy joxe boo fa demee dañ koy yëkkati jox la sinon nga téléchargé ko ndax mi ngi ci biir internet bi ah bokk yi nag wax dëgg yàlla nag fii leen mën a yem nag lekk gaa ngi sotti na raxasu maa ngi raxasul nga ni alag mi ko waa ji il faut mu tibb sexal la waaye moom mu àcc na sax ba àgg ci tibb sexal la nga ni ko dégg ma sàqabil ah loolu la ñuy seet nag ah <laughs> loolu la seet nag خلاتنا دو من نك اللهم اني نويت بتلاوه هذا الورد ورد سيدي ومولاي احمد بن محمد التجاني تعظيما واجلالا لك وابتغاء مرضاتك وقصدا لوجهك الكريم ومخلصا لك من اجلك واقول بامدادك وعونك وحولك وقوتك بما وهبتني من انعامك وتوفيقك مستعينا بك يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك وإيمانك وطاعتك ودوام وردك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا بوري الله أهنك يا الله اللهم يا بوري الله maqsad bi lañuy firi moy li nga xamni bala ngay werd wala ngay wadifa mom ngay jang mo nek ni allahumma yow ya bur yalla inni naka man werante amul ci ni sa jam bi tok jano ak yow sa jam bobu de nawaytu neena mom ma ngay yene bi tilawati haadal wirdi ci jang gi muy jang wirdi wi mu préciser ko ni wiir wirde sayidi ahmad tijaani laa wax de wiir du wirdu cheikhna ahmad tijaani wii may jàng lan laa ci yéene ci sama xol lan moo tax ma di ko jàng ana lu ma ci tax a jóg mooy taadiman ak màggal wa ijlaalan akuk réel laka di la ñeel yow yàlla dama ko jàng pour màggale la ko dama koo jàng pour réele la ko moo tax kuy dingat cheikh tidiane billahi boo dee waxuma la safara sax safara doo fa dem ndànk de xanaa déggoo wax bi li ma tax toog dëju yow yàlla du dara lu dul lii may jàng muy wirdu Cheikh Seydi Ahmad Tidiane nii lenn dong nga tax ma di ko def mooy taaziman ngir màggal la yow yàlla wa ijlaalan réyal la yow yàlla laka di la ñeel de paa keneen yow laay màggal yow laay réyal waaye wabtigaa mardatik dama koo def ngir wut ak di sàkku sa ngërëm yow yàlla jaam soxlawul lu muy ngërëmal yàlla waaye itam wa qasdan maa ngi ca yéene ak di ca jublu li wajhika ma ci xaalis jubluwuma ci àddina ma ci gis yonent bi ma ci dee dem aljanna ma ci ragal safara lenn dong laa ci jublu sa jëmm ju tedd ji dong laa ciy wut wa qasdan maa ngi ca jublu maa ngi cay wut li wajhikal karimi ci sa jëmm ju tedd ji yow bur yàlla waaye wa muxlisan waaye nag jamono bi ma koy def na nga yëg ne yow bur yàlla wa muxlisan may aji sellal sellal mooy li def du ko wuta boole keneen mbaa leneen li may def rek lay def te yow rek yaa tax ma di ko def loolu mooy wa muxlisan mbir moom nekkam may aji sellal jëf ji muy werd wii laka waaye pour yow de di la ñeel de pas pour keneen waaye min ajlikat ngir yow it dama koy def mu ñeel la waaye dama koy def ngir yow mooy min ajlika wa aqulu te maa ngi wax man taalibe Cheikh Tidiane bii bi imdaadika di dimbalikoo sa ay tëbbi leer noonu nga koy firee ndax baa gi baa ul istiaanati la wa aqulu maa ngi wax bi imdaadika di dimbalikoo sa kattan yi nga ma tëbb yow yàlla nde man yëg naa ni aw ma sax dooley janoog jàkkaarloog yow di wax waaye maa ngi wax wa ni ka tey dimbalikoo sa dimbal wa xawlika tey dimbalikoo sa katan, wa quwatika tey dimbalikoo sa doole yow yàlla waaye ànd ak loolu yëpp bi ma ak la nga ak la nga xam ni ma li ma defal de attention maa ngi sa katan, maa ngi sa doole maa ngi sa tëb bi leer ak sa ndimbal waaye dama lang ma may as lëf ci kàttan dégg nga wax ja moo tax mu ni bi ma boole ca nag la nga may nga yow min inaamika ci sa ay xéewal muy cër yi ma jox ma war la ci caa jaamu wa tawfiqik ak dëppale gi ma dëppale sa kattan nde xañ nga ko ñu bare jox ma ko man waaw musta mustainan may aji sàkkoo wut ndimbal bi ka ci yow wutu ma ko ci keneen te di ko jaare ci werd wii yaa mu sabbital qulub yow mi nga xam ne yaay saxal xol yi ci mbir sabbit maa ngi lay ñaan yow bur yàlla nga saxal naa sunu xol yi ala diinika ci sa diina jii ñu di ko topp wa imaanika ak ngëm gi nga xamante ni bii ni moo jaadu ci suñu digg ak yow wa taatika ak topp gi jaadu suñu digg ak yow yàlla nga ci saxal suñu xol yi de wa dawaami wirdika ak fu ñu toll di saxoo di jàng wirdu wii nga xam ni sa wirdu la yow yàlla wirdu tijaan wirdu yàlla suñ Babacar wax na ko tariqatul xaqi wal muxtaari min mudarin gis ko de yaa yow mi nga xamante ni bii ni yow yow yaay ki nga xamante ni bii ni yaa mën a yërëm firee ko noonu bul wax yow mi nga xam ni yaa gën a mën a yërëm way yërëm ña déedéet yow mii yërëm way yërëm wala bokk yow rek yay ki mën a yërëm yaa rabbal alamin yow mi nga xam ni yaay borom mbindeef yi maqsad bi lii la Cheikh malik Hadj Malick nag comme moom dafa xereñ macha allah mu daal di koy wooy def ko ay bayit ni rabbi inni nawaytu bittilaawa cay paa yooyu kenn du ñoom yàlla xam na ko zal wirda taadiman lidil jalaala kada li ijlalin wal ibtirai mardatika al aliya bila xafaa'i góor gi fii mu ni wa qasdan li wajhika al karimi wa muxlisan laka min ajlika gis nga mu ni wa qasdan li wajhika al karimi al aali wa muxlisan laka maa ibtihaali gis nga ko de rabbi min ajlika wa qad aqulu bi xusni imdaadika yaa muqiilu góor gi fii mu ni wa aqulu bi imdaadika wa awnika wa xawlika wa quwatika moom la way noon de gis nga ko noonu la ko toppee ba bayit di jeex mbokk yi bayit yi mi ngi ci fàkkati tulaab après incha allahu taala xam naa du ñàkk dinañ ci ñëwaat ni ñu ko firee nii rek bayit yooyu it loolu rek lay firi ñu bàyyi ko xel ndax maqsad bi lu ama ama am solo la ci wirdu wi nga xamante ni bii ni ñi ngi koy def mbokk yi